Assalamu alaikum bienvenue sur CTGHT sama est-ce que vous avez ni Apple application ou le été développé pour Android application boobu migrer vers iOS et application pour permettre de transférer ses données sur Android yóbbu sur iPhone mais dès si bi vous nekk yoonam nekku écouté et tey sama gars yi si biir vidéo bi dinaa leen jox ñaari méthode yo xamante ni da leen di permettre ngeen mën transférer sen données WhatsApp yi nga xamante mi ngi nek ci sen téléphone Android bi yóbbu ko ci sen téléphone iPhone bu bees bi et méthode bu njëkk bi mom moy migrer vers iOS. application bi di migrer vers iOS mën ngeen ko télécharger ci Play Store gratuitement bo leen télécharger application ba paré li ngeen wara a njëkk def mooy il faut ngeen réinitialiser iPhone bi lu tax ngeen war a réinitialiser iPhone bi parce que application bi di migrer vers iOS moom dalay permettre nga mën a transférer sa données yi nga xamante ni mi ngi nekk sa Android yóbbu ko si sa portable iPhone bi mais uniquement instant yi ngay configurer iPhone bi mais bu fekkee ni yow da nga bëgg benn méthode boo xamante ni du jar ngay réinitialiser sa iPhone yow deuxième méthode bi dina la arranger léegi nag boo leen réinitialiser téléphone bi bamou fay takat legui li ngeen di def moy da ngeen di continuer configuration iPhone bi lu upp solo ci configuration iPhone bi moy na ngeen wu que ni téléphone Android bi ak téléphone iPhone bi ñoo bok ci même fi bi nga xamante ni mom lañ connecté wu loolu ci upp solo Legui nak boo configurer iPhone bi ba yex fi ñu bind application et données li ngay def moy da ngay bëss fi ñu bind migrer des données depuis Android ensuite léegi nga application bi di migrer vers iOS ensuite léegi nga bës fii ñu bind continuer ensuite di nga gis ni iPhone bi daf lay jox benn code à usage unique maanaam benn code bu six chiffres boo xam te ni moom nga war a dugal ci sa téléphone Android bi léegi boo dugalee code bi di nga gis ñaari appareil yi dañuy synchroniser wu léegi nag ngay doon a mën a tànn yan données nga bëgg transférer ci sa téléphone iPhone bi man dama leen di wax ngeen glisser ba ci suuf ensuite léegi di ngeen gis WhatsApp léegi ngeen bës fii ñu bind commencer ensuite léegi ngeen bës suivant si vous boo faire le transfert bi lan ngay def da ngay juste fii ñu continuer ensuite léegi nga le transfert bi dem le transfert bi pare li ngeen di def mooy da ngeen di continuer cette configuration iPhone ensuite vous ngeen télécharger WhatsApp Vous ngeen configurer seen profil WhatsApp tranquillement léegi di ngeen gis ni voilà seen données WhatsApp yépp dellusiwaat na transfert bi réussir méthode bi migrer vers iOS amna avantage bu melni ni dalay permettre yow nga mën transférer ces données yi nga xamante ni mi ngi nekkoon sa portable Android yëpp manam ces contacts, ces messages, ces photos, ces vidéos, lépp nga wat ko yow ci sa portable iPhone loolu mo nekk avantage mais itam méthode bi amna inconvénient bu melni il faut que nga réinitialiser sa téléphone parce que pour nga transférer moment configuration bi rek ngay mën transférer mais bu fekkee ni yow go réinitialiser sa téléphone mais quand même bëgg nga transférer ces données WhatsApp yi nga xamante ni ñi ngi nekk sa téléphone Android ci sa téléphone iPhone iPhone bu bees bi mën nga utiliser deuxième méthode bii di iCare phone transfer iCare transfer benn logiciel la boo xamante ni da lay permettre nga mën a sauvegarder say données WhatsApp nga mën a restaurer say données WhatsApp itam nga mën a say données WhatsApp ci sa appareil yëpp que mu doon Android wala mu doon iPhone et données WhatsApp yi bu may wax mën na nekk WhatsApp normal mën na nekk WhatsApp business et itam na nekk WhatsApp GB bu fekkee ni ñaari Android la def naa benn lien de téléchargement gratuit ci description bi gannaaw bi ngeen installé logiciel bi li ngeen war a da ngeen war bi relier da ngeen di njëkk brancher téléphone Android bi ensuite léegi ngeen door a téléphone iPhone bi c'est très important parce que téléphone bu jiitu moom mooy téléphone bi nga xam te ni mooy envoyé téléphone bu ñu mujj branché mooy téléphone bi nga xam ni moom mooy recevoir léegi nag boo bëggee tàmmali transfert bi da ngay bës juste fii ñu bind transférer ensuite léegi nga cliquer fii ñu bind continuer léegi logiciel bi nee nañu dañu war a créer benn sauvegarde locale pour créer sauvegarde locale dañuy topp tegtal yi nga xamante ni logiciel bi jox nañu ko damay ñëw si paramètre whatsapp yi ensuite léegi ma ñëw fii ñu bind discussion ensuite léegi ma sélectionné fii ñu bind sauvegarde de discussion ensuite léegi ma bës fii ñu bind sauvegarder léegi boo créé sauvegarde locale ba pare da ngay bës continuer léegi nag sama gars yi fii dañu war a vérifier suñu compte whatsapp et pour def loolu dañuy sélectionner fii ñu bind vérification par SMS ensuite léegi fii yow da ngay tànn sa pays comme Sénégal ensuite léegi nga bind sa numéro téléphone léegi ensuite léegi nga bës fii ñu bind vérifier di nga gis WhatsApp daf lay envoyé benn code bu six léegi nag code boobu noonu moom ngay bind pour yow vérifier sa compte WhatsApp. léegi nag sama gars yi fii nii ngeen di tànnee données WhatsApp yi ngeen xamante ni moom ngeen bëgg mu dugg ci seen iPhone données WhatsApp yi mën na nekk photo yi kese mën na nekk vidéo yi kese mën nga tànn sax ni yow photo ak vidéo yi mais vocal yi du dugg mën nga tànn ni gif yi du dugg fii daal loo bëgg tànn. niveau bi nga koy tànn léegi nag boo choisir données yi war a dugg ba pare ensuite léegi nga bës fii ñu bind continuer léegi pour ñu terminer transfert bi il faut ñu désactiver suñu localiser mon iPhone ndax loolu dafay bloquer transfert de données bi et pour def loolu dañuy dem réglage ensuite léegi nga bës ci sa tour ensuite léegi nga sélectionner localisation nga bës fii ñu bind localiser mon iPhone ensuite les gars désactiver localiser mon iPhone Se localiser mon iPhone mën nga ko réactiver pour bu que ni transfert bi terminé Les gars qui gis ngeen ni transfert bi pare Les gars l'ont ñuy def mooy dañuy configurer sur suñu profil WhatsApp ci suñu portable iPhone bi ensuite gars gis ngeen ni voilà sur suñu données yépp ñëw léegi nag sama gars yi application baa ngi noonu ay iPhone transfer ma leen di fàttali lien de téléchargement bi def naa ko ci description bi donc yaakaar naa ni bi neex na leen yaakaar naa ni bi jàppale na leen donc du ma def leen lu dul deen di jox dig daje si samay prochaine vidéo incha allah